seen mbokk Saliou Sy di leen ko defal tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy barkeelu ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha afisahullahu wa raa lim jox mboolem taalibe yi yépp te it ñaan ko jullit ñëpp itam ku ko mën ku nekk nga def ko ndax njariñul àdduna la njariñul jullit ñi la njariñul lislaam la te mooy loo xam ne nii kat danañu jañal lépp lu ñu ragal ak bépp musibaaki balaa waaye danañu xëccalit Euh, gépp xéewal te loolu ñëpp ko aajowoo loolu nag sëriñ bi dafa wax ne ñaari sàll yi nga xam ne ni mooy sàlli sëriñ Tuubaa mooy alquran ak xasida ñu def tawassul ci sëriñ Tuubaa euh, bu ko defee ñaan liñ bëgg lépp suñ borom taa tabaaraka taala danañu janal liñ ragal danañu ñoddil tamit liñ bëgg te mooy njàngum alquran moo xam ne ni sëriñ bi santaane ko bu subaa ñëpp maase ci def ko boole kook njàngum xasida boole kook sàkk sarax itam boole kook tamit teral ñiy jàng alxuraan ak xasida ci ay bernde alxuraan nag Sëriñ dafa wax ne ci lañ yaakaare am yërmande suñu borom tabaraka wa taala àdduna ak alaaxira waaye ci lañ yaakaar tamit suñ borom musal nu ci eh, bépp musiba ak gépp njàq rek àdduna ak alaaxira kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi rajaw naa min al mawla bihi xayra matlabin wa fus naa bihi fi kulli dafarin wa fi jalbi kon loolu lépp ci alxuraan lañ ko yaakaar ngën ji càkkutéef ak lépp loo xam ne ni jañ la ak ñoddi ci alxuraan lañ ko yaakaar alxuraan nag moom ku na xam ne ne sëriñ bi mooy léppam wax na ci lu baree bare kënsil kitaabu wal xadiis wal adab laa jamhu fiddatin wala jamhu dahab qiraatuha kënsi wa jaahi wa izzati wa niltu biha kaw ni larallahi saa sadaqi kon moom lépp lu mu am rek ci alxuraan la ko am nee na it alxuraan yow kat eh, yaay sama àndandoo bi nga xam ne ne yaa mi gunge ba àjjana raafaqatani mushayyaan lil janna daarul xaraari wal muna wal minna nee alxuraan yaa ma woomalal yaa tax ma riche yaa ma musal yaa ma teral yaa ma sàmm yaa ma may li ma bëgg lépp yaa ma bégale tamit axnaytani azamtani karamtani xafidtani màllaktani bashartani nee na ci alquran la ma sun borom tabaraka wa taala yëkkatee ba àjjana rafaani ilal jinaani allahu bika wala ilaha illa allahu nee na alquran na ma yëkkati goo xam ne nii dootuma suufi mukk te képp koo xam ne nii day yëkkati gi ma alxuraan yëkkati ak jiitu gi ma jiitu naqari na la sun borom dana la wàcce te dootoo jëm kaw rafaanil quraanu rafan xafada man saahu taqaddumi fan ba alxuraan mooy léppam kon xasida yi nag dafa rëy rëyaay goo xam ne nii nee na moom ci lay jañ ci lay jañ di ci ci ñoddi ci lay jañ di ci di ci ñoddi dafay wajal bi xidmatul haadil amin man la xasida yi tamit nee na dañuy jaamu suñu borom tabaraka wa taala waaye dañuy liggéeyal yonante bi jëmmi xasida yi ci boppam kon day mel ni xasida yi melow sëriñ Tuubaa lañ ba li sëñ bi def xasida yi tamit dañ koy def xasaid yi taabudu rabbi shakur wa innaha taxdimu abdahu shakur dañuy jaamu yàlla di liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ah ku ne xam ne jamono jii tamit saytaane bari na doole lool kon nag la nga xam ne nii kat mooy tax saytaane nekk ci ay jafe-jafe di jooyaka ak lu na di ko dal ci musiba loolu jar naa fonk te loolu mooy xasida yi te nee na xasida yi kat day bégal yonent bi sallallahu alayhi waaye nag moo gën a métti ci iblis ay kanu kitaabati tubashirul mushafaa wa inda iblis tafuuqu nee na samay mbind day day day samay jinaas samay mbind day bégloo yonent bi saa bu may bég bu may bind yonent bi day muuñ di di ree di bég waaye iblis moom day jooy tabassamal muxtaaru min jinaasi munzu badaa bihi bukal si moo tax sëñ bay jaxate ne ko say mbind daana waral seytaane fecc ku daw yoneen bu tedd ba mu ñu lëf aras jaayo ah, bu dee teral jàngkat yi loolu ku ne xam ne ni jamono yi Sëriñ Tuubaa ña mënoon alxuraan ñëpp dañoo xamoon ne ñoom ah, seen aajo faju na ñu ko mënutoon sax dañ koo jànge woon ngir wàcc waay wa am ci moom ak taraanga ci ñu jëlee ci moom wax nañ ne sëriñ Ndiassé Cissé way juru sëriñ Mor Mbaye Cissé ba mu jébbaloo ca Touba sëriñ bi da koo laaj noo def ak téere bi mu wax nu mu ko mënee sëriñ bi ne ko buñ jullee gee nga ñëw waxal ma ko bañ jullee gee ba noppi sëriñ bi toog ci lu mel ni ak tóoj sa Ndiassé di tari di ko wër di tari di ko wër ba wàcce mu ne ko Ndiassé mën nga alxuraan lool waaye da nga koo muumut te nit lu mu muumut mënu caa jariñu mënu caa jariñe daal ne ko ana noo def téere bi mu ne ko man de moom lay dundee damay def saa moo ko bindee dama koy wecce ko ñetti dërëmi ngurdu jënd ci ndimu mu mosol jënd ci ab dund balaa dund baa jeex ma àggal beneen wecci ko noonu laa koy def man alxuraan laay dundee mu ne ko demal bindal ma ci benn ba ko bindee ba indi ko sëriñ bi ne ko fa nga nekk ku la ci gën a jege ca fere ya mu ne ko sëñ ma Sàmba job Saam sëriñ bi bind aw kayit jox ko ne ko boo demee nga jox ko ko ba ko yettee sëñ ma Sàmba Jóob Saam sëriñ bind ci ne ko na kaamil boobu nanga teral téere bi maanaam ki ko yor sëñ Masamba Diop Saam laaj ko ne ko boo masaana bind ñaata lañ lay jox mu ne ko dama ko daan wecc ko ci ñetti dërëmi ngurdu sëñ Masamba Diop Saam dugg wàññi juróomi téeméeri dërëmi ngurdu jox ko ko sëriñ Njaay sa jox ko bëgg koo jox kaamil bi mu ne ko mbind mi jógee ca ku tedd ka rek doy na ma ah ba mu sëriñ mi ne ko ànd noo def ak Masamba Diop mu ne ko moom day jox na ma juróomi téeméeri dara mi ngurdu waaye la ma ci gën a yéem téere bi dama ko koo jox mu ne mbind mbind ma nga bind rek doy na ko sëriñ mu ne ko nag njaase waxoon naa la ne yaa ngi doog a dajeeg moomoo ko loo daan bind di ko wecc ko ñetti dërëmi ngurdu tey nga bind ko ñu jox la juróomi téeméeri dërëmi ngurdu delloo la sab kaamil yaa ngi doog a dajeeg ku ne xam ne ni itam jamono bi mu nekkee njaareem sëriñ ma banji njaay ak ñi nga xam ne ni ñoo ci daari kaamil sëriñ da leen daan yu bari di leen wax ne li fiy ñëw seen wàll da cee bokk kon nag kooki eh, joxañ na joxañ boo xam ne ne képp koo jàng alxuraan wala nga jàng xasida warees na laa teral kon nag képp koo xam ne nii kat eh, yàlla mën loo na la jàng ak teral ñay jàng nga boole yëpp ndax aw lu baax du doy waaye képp koo xam ne nii nag jàng jàppandewu la te yàlla wërsëgal la na nga yëkkati ci sa wërsëg teral ñay jàng alxuraan ak xasida génn ci itam loo xam dañ koy saraxi ni ko sëriñ bu waxee ñu dajale ko jox ko ña ko aajowoo ak fu ñu mën a nekk nag ci àdduna te doon ay jullit kon nag ca Touba ci kër sëriñ Touba ak mboolem kër sëriñ Touba yépp ak ci daayira yi ak ci jàkka yi ak ci daara yi fépp la ko sëriñ bi dégle te jullit bu nekk itam war na caa sonn ndax njariñul mbindeef yi la kon nag nañ ko ci ñaanal moom it lu Mamadou Mountakha sunu borom wane ci ak kiimaanam bu baax xar baaxam ci yàggal ko fi ak wéral ko ba naal yi nga xam ne ni yéene na ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu àggale ko te ànd ko ak moom